ginnaaw buñ sante yàlla julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu waajur ak suñ sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim e defe naa ne ci ndigal la ñuy waxee eh, su ma jëlee kàddu parce que comme sëriñ moom moo ñu ko ñaan nekk suñ collègue nekk suñ xarit ñu bokkandoor ak moom lu ñuy liggéey dafa bëgg ma wax xëy na peut-être au nom de tous les lutteurs <clears throat> Eh, sëriñ ñu ngi lay jaale suñ mag suñ xarit muy pap parce que man léegi rek maa ngi la koy wax personnellement aw ma numéro Bombardier parce que numéro pap laa am que numéro Bombardier loolu ça veut tout dire lépp lu ma soxla woon rek ci Bombardier damay woo directement pap pour wax la rek et en dehors de xëy na peut-être nekkoon manager nekkoon un sportif accompli c'était un homme tout court waaw nit ku baax lu ñuy xaar ci un jeune sénégalais lu ñuy xaar ci jullit lu ñuy xaar ci mag moom moom la taxawe woon pour ñëpp en fait et loolu je pense que ne je parle sur le contrôle de tous les sportifs tous les lutteurs kenn ku nekk mun na seede loolu ci moom parce que baax mënul u baax nit ku baax la woon et je pense que ne loolu da ko dund ak ñëpp kon unanimement et néew na nit bu mën a am seede bu mel noonu kon nag yàlla bu ko cat jiitu mi lam ñu ngi koy ñaanal yàlla suñ borom mi nga xam ne comme nu ko président waxee yàlla atte ko si yërmandem ya rabbi j'ai l'habitude de dire aussi mbir su amee mbir mi en soi c'est pas important mais luñ ci mun a jàng moo am solo parce que lii dafay wane rek ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar nekkul rek un slogan nekkul wax mais jëf la en fait parce que yàlla dafa ne binduma nit ak jinne ak malaaka lu dul ñu jaamu ma kon ku jaamul yàlla rek perte nga parce que nag et eh, acquisition yeeg ndombal tànk yeeg alal beeg champion yeeg ñun la concerné mais concerné wul yàlla yàlla nee na binduma leen exclusivement pour ngeen jaamu point ci ku dégg tubaab kon nag ku jaamul suñ borom rek perte nga kon nag li may wax misaal biñ ci mën a jottali mooy nañ xam ne en fait ñëwuñ ci kaw suuf lu dul ñu jaamu yàlla rafetal Houphouët Boigny disait la paix c'est pas un mot mais c'est un comportement de tous les jours kon tey loolu tam misaal la parce que ki gën ci jaam yi comme nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee mooy ku jaamal jaamu yàlla yi te Pape dafa jaamaloon ñëpp unanimement kon tamit bokk na ci élu yi en fait te am nañ yaakaar ci moom parce que weer bu mu génn àdduna tamit weeru gàmmo la te ku nekk nag xam na ne fii dara nekku fi lu dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ci barke ki nga xam ne moo tax ñu sàkk doomu aadama yépp muy xam Muhammad mu taseeg weeram bi yal na ko yàlla xaaree àjjana et profité si occasion pour jaal ko ñu fi teew ñëpp jaal ko suñu autorités yi commençant par le président de la république Macky Sall ak délégation bu mu fi indi muy suñ ministre tutelle muy Matar Ba ak suñ ministre nekk suñ grand frère suñ xarit muy Omar Youm ak autorités yi fi teew euh, monsieur le préfet ak monsieur Sall et ñëpp ñi fi teew ñëpp ñi gën a tuuti ak ñi gën a mag ñëpp ñu ngi leen koy jaale. ñu xam na rek Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom rafetal rek moom moo si am di sant ñëpp au nom de la lutte di masawuwaat suñu yaay euh, yaayu Bombardier soxna Aïcha di jaal njaboot gi yëpp di jaal suñu frère Serigne Dia au nom de tous les lutteurs. di leen wax ne ñu ngi leen di gërëm ñu fi teew ñëpp ñu jóge fu sori ñuñ gis ak ñuñ gisul ñëpp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 Gims et le samedi décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations. Yeah, c'est le prince Dadj. Rendez-vous le décembre à l'esplanade du musée des civilisations pour un concert historique avec Voilà Oui, Voilà No Games. Les choses se passent en ensemble comme jamais. Venez nombreux, nombreuses, on va faire la fête. Oh, oh, oh.